sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay tur bi naka la. man Talla Diop. Talla Diop lan nga bokk ak Baye Bada bi nga xamante ni gannaaw ci fàttali accident bu metti bi nga xamante ni moo amoon ci diggante Bambey oto boobu nga xamante ni dafa daal di lakkoon mu daal di ciy ñàkk bakkanam lan nga bokk ak moom. waaw Baye Bada moo ma jur ma nekk taawam waaw waaw maa nekk taawam. gannaaw bañ la jaale sa papa jooju di la mosaw ci tiis bi nga xamante ni moo dal seen kaw aussi yan kàddu seede rek nga mën a joxe ci paa bi nga xam ne moo fi daal di bàyyee ko waa ginnaaw bi ñu ay dogalam ba bari Baye Bara moom dafa nekkoon koo xam ne pour ñu wax ci moom moom géej la daal du lim ma jur moo tax ma koy wax mais dafa nekk góor goo xam ne góor yàlla la woon gëmutoon dara lu dul liggéey ndax ku xam Baye Bara xam ni toll woon na ci as boo xam ni mënoon naa toog ndax am na njaboot gu ko mën a yor waaye gëm gu mu gëm liggéey ak bëgg gu mu bëgg gunge njabootam moo taxoon da doon daan doomam fa mënti toll te it ci loolu la nàmpatal njabootam loolu la leen gëm loolu la leen jàngal ba ni fi làqatu. ndax mën nga ñu fàttali sa papa jooju ñaata at la amoon. waaw am na entre 69 ba 70. d'accord mën nañu xam aussi ndax ci këram la doon dem wala da doon dem ngir jënd ay marchandises. waaw dafa fajaru woon pour dem jënd ci ginaar ndax moom jaaykatu ginaar la waaw dafa demoon dem jënd ci ginaar ay 3 heures du matin moom souvent fils boobu daf ko doon koj bunt Pikine. orel bi. orel boobu nag da daan koj buntu Pikine. bu demee buntu Pikine xaar ko fa mu jël ko yóbbu ko ñooñ ñu ko xam nañ ko bu baax waaw ba yàlla def li mu def tey. naka ngeen yëgee ne accident boobu daal dinay am te seen papa aussi ci la bokk. waaw loolu nag laaj laaj na procédure bu gudd ndax ñun xaw nañ ko yéex a yëg yëg nañu accident bi mais suñu xel njortul woon ni moom ci la bokk ndax xam nga nit moom horaire yi ngeen tàmm di gisante horaire yooyu su jotul rek sa xel mun naa bañ a daj ni kooku am na gàllankoor dañ ko doon tàmm 3 heures du matin la ñuy tàggu ci kër gi ay 15 heures souvent jàpp 16 la doon ñëw kon pendant temps boobu ngay toog nekk sa liggéey da ngay jàpp ne kon moom ak seegul alors que ndeke yàlla def na li gën ba fa biñ toogee ba ba 16 heures gisuñu ko dégguñu ko ci lañu boobu yëg ngeen accident bi. boobu waaw boobu yëg na accident yi ci vidéo yeeg yooyu réseaux sociaux yi euh, ci lañu woote ci numéro mais jàll ñu woote wat jàll ci lañu oo koo xam ni da daan ànd ak moom di dem biñ jotee kooku tamit daf ñu xamal ne moom demut waaye na su fekkee ne seen papa demoon na oto biñ doon yóbbu ñun oto ba daa def soog ci lañ daal di jóg nag nekkoon nañ ko dem wëri ci bali bali bañ gis ne daal moom ci koor yi la bokk quoi. ngeen ko wéree gis wala. Hmm? bi ngeen ko wëree bi ngeen demee gis ngeen seen papa. waaw jotuñu koo gis ndax bi wëree fi ñu war wër yëpp dem cees Thiès yóbbuñu njaareem ñu dem njaareem njaareem tamit ñoom li ñu xamal mooy ki ñuy wër moom bu buñ ko gisut ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy victime yiy dund nañ jàpp ne koor la parce que njaareem ñu fa ñëw ñëpp ay koor lañu ñu ñëw xombal waa xombal tamit xamal nañu ni kon nañ bàyyi ba huit heures ñu fanaan ci sapeur pompier yi bi ñu xëyee tamit jëm xombal visiter ñu gis ne même liste yi sax turam nekku ci ci lañ xam ne kon moom mu ngi jaareem quoi. mais jot ngeen ko gis bi nga xamante ne ñàkk na bakkanam aussi. non jotuñu kaa gis dañuy profiter sax ci occasion bi remercier état bi mais en même temps préfet bu njaareem parce que gis nañ taxawaay biñ ci taxawee xamal nañ tamit ni. maanaam koor yi moom mel nañu façon melin boo xam ni kenn mënu ko présenter kenn en même temps tamit mënuñu jox benn famille koor ah. waaw non fekk ñu ngi denc leen de bi ñu xamelee loolu boobu ay huit entre neuf heures lañ njaareem ci margo bi ci lañ fa nekk ñu xamal nañu entièrement bi onze heures lay am ci kilifa yi nga xam ne bi ne ñoom ñoo nekk njaareem enterrement bi jotul am 11h mu ngi am 17 bi mu am tamit ñun famille yëpp ñoo ci yamandoo ci enterrement bi mooy gis nañ ni daal koor yi ñoo nekk nii ñu ñëw waa am na daayira bu nekk foofu ñu jàppale ñu ñu denc koor yëpp koor boo denc rek nga xam ni kooku yow kooku mooy sa mbokk mais doo xàmmee koor bi ak koor ba ne la hmm. déedéet jotu ñoo xàmmee suñu kooru papa waaw ndax melokaan bi mu meloon waaw bari na parce que maanaam gi nga euh, faatu moom jombul kenn mais ku sañoon tamit sa mbokk bu faatoo nga mën koo jot yóbbu ko jébbal ko suñu boroom xam ne fii nga ko denc mais loolu mënul woon am bi nga xamee loolu mënul am nag yëg nañ lu bari ci suñu bopp parce que xam nañ ne Euh, mitti na daal mitti na trop mitti na trop wallaay. waaw sama papa mënoon naa wax ni maanaam tey bu fekkoon yàlla waxutoon ni man man kese maa yàlla ma ne moom yàlla la woon ci man quoi parce que moom moo nekkoon suñu lépp moo nekkoon suñu weeruwaay ba pare nampatal na ci ñu bari jàngal ñu lu baree bari loo xam ne bi ne nii mun naan dem na de mais incha allah rabi ñun ci yoon boobu la ñuy jël. moom la ñuy ak moom. waaw li ma gën a marqué sampaafu moom bari na trop waaye demam gi tamit raw na ci demam gi ndax demam gi bette na te parce que parfois nga nekk ak kenn mu nelaw mais balaa muy nelaw sax nga am benn yàqin ci moom ni kii kat mu ngi tàggatoo wala moo ngi def nangam mais sam loolu yëpp amu ci ñoo nekkandoo ba ni mu tàggatoo ci fajar gi dem waaw xëy rek dem dem noonu noonu dem noonu. loolu marqué na ma trop. Hmm. non du yomb du yombut surtout si ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko gënoon jege ci di samay rak parce que boo xoolee liggéey yi man xaw na am distance ak moom tuuti man ci biir marché bi laa nekk moom ci bitti la nekk souvent mun na toog semaine man ak moom dañuy déggante téléphone rek bala maay ñëw nelaw na. balaa may xëyee ji tamit fekk moom mu ngi biir néegam mais ñi nga xam ne bi ne ni ñoom ñoo collaboré woon ak moom taq ak moom nga xam ne chaque jour ñooy gisante ak ñoom métti woon ci ñoom trop te gis naa ci seen kanam ne métti ci ñoom trop parce que jooy nañ ko jooy xool dëggantaan waaw message bi moom mooy ñu xam ne mënuñu bàyyi tali bi gannaaw ba tali bi moom ñun ak ñoom ñoo dëkk nañu góorlu ci ni nga xam ne noonu la ñuy dawalee ndax tamit ay bakkan lañu ñu yab te bakkan yi ñu yab bakkan bu nekk am na lu muy service loolu tamit dañ koy sóoraale bu baax malgré ñoom bëgguñu faatu bëgguñu faat kenn mais yi nga xam ne ni mooy waral ak yi di am ñu moytu ko bu baax mooy ñu jéem a récupérer bu baax jéem a xool tamit concentré wu ci dawal bi parce que loolu tamit moo am solo kàddu gu mujj gi mooy comme li ma wax ci biir wax ji mooy état bi ñu ngi leen di remercier parce que gis nañ ni seetaan seetaanuñ fa seetaanuñ fa kenn benn famille bi affaire bi amee ñëw nañu présenté nañu ànd nañu ak ñun ba armée ya en même temps tamit ànd nañu ak ñun ba ci suñu kër yi waaw def nañ lépp li xam bi ne ni moo ci war yónnee nañ tamit ab somme boo xam ne ni pour famille la kon ñooñu gis nañ ni ñoom ñu ngi bàyyi xel askan wi waaw en tout cas tamit ñu ngi leen di jaajëfal waa Wassare TV parce que may ngeen ñu opportunité ñu mën a génn ci benn site internet pour wax li nga xam ne bi ne moom moo ñu moom moo ñu touché quoi kon ñu ngi leen jaajëfal ci présence bi koi jërëjëf